suñu ma ko mayee ma tàmbalee ko ci sunu bokki njiiti diine yi nga xam ne danoo bokk ak ñoom mbir mi te waxtu wu nekk ñu di fi toggoo ay coono di ñëw di fi am ay fan te lañ fa bàyyi mooy li ñu fiy fekk si kon nag loolu cant gi mu yayoo maa ngi leen di sargal ci ni sëriñ Touba waxoon ci weeru koor di ko ndokkeel ne ko ahlan wa sahlan yow weeru koor kon yéen yi ak seen xar kanam yu leer yi ci leerug yàlla tabaraka wa taala yéen ñi ngi leen di ndokkel ci bayit bobu foofu dana ma may ma wax tuuti ci tariqa tariqa benn bu wuteeg morom ma ci li lislaam wax amul aji makka julli juróom azaka koor ak shahadatu an la ilaha illa allah ci nekk mooy toolub yàlla bi dafa yaatu am béréb yoo xam ne ay jàjj la di kekk am bërëb yoo xam ne dafa nooy nitug yàlla ku ne nag fa la yàlla yebal dalay jox jumtuwaay yu xeetoog loola loolu moo tudd tariq loolu it mooy parti politique ci àddina citoyen mooy jullit militant mooy taalibe yaakaar naa ne benn parti bu wuuteeg moroom ma ci constitution réew ma amul walla frontière réew ma wala drapeau réew ma wala hymne national bu réew ma xanaa kay kenn ku ne danga naan sama janax nii laa ko mën a toje di toj sa janax ca na ko xam kon nag loolu rekk moo am nu sant yàlla nag bi nga xamee ne noonu diine lislaam ji nu yàlla jox bu nu ko bëggoon a soppi ngir ay tarixa du nu ko man ndax daf koo aar lislaam mooy laa ilaha illa allahu muhammadun te bu ngeen ko seetloo baat bu guddee noonu te benn tomb tomb amu ko foofu nga koy gise wax bu ma tee ñaari bar rek tomb ya bari ca su boobaa day nangu soppi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li tax tomb ñëw ci ci ci ci arab dafa am ku ko doon jàng ne ataaka bi abdin wa ataaka bi sabin ñu ne lii buñ ci sakkut pexe alxuraan ji dana yàq waaye laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah benn tomb amu ci moo tax lislaam kenn du ko soppi kenn du ko waragi kenn du ko fobit di ko méngaleeg la nga ne yow yaa bëgg mu doxe noonu yàlla du ko nangu ndax boo tombee ci kaw ñu ne la dindil amul tomb boo daggee ak alif ñu ne la delloo ci ci la dëkk te jullit bëgg na ñàkk solo moo la koy wax kon nanu sant yàlla bu baax ci loolu ma dikk ci délégation bi nga xam ne moom la nguuru Sénégal yebal te ministre de l'intérieur jiite ko président de la république yebal ko mu wax kàddu yi mu wax jëme ko ci sëriñ bi jëme ko ci bokk yi jëme ko ci yoon wi ni ma ko waxee ni laa ko koy jottalee te ci biir loolu kon ginnaaw yaa ko fi taxawal ñi nga xam ne ñoo fi nekk représenté yeneen i parti yeneen i mbooloo àddina ak corps diplomatique bi nga xam ne moo nekk fii te bàyyi ko ci réew yu bari noo ngi jaarale ci yow yow itam ndokkeel yi leen di sëriñ bi di ndokkeel na nga leen ko jottali yéen mbokki taalibe yi def ngeen li ngeen war a def sëriñ Tuubaa woote na ngeen wuy si ba tax na li yàlla digge ci ñu woo la nga wuy si da ngeen ko gis ma bëgg rek fàttali leen tuuti waxtu wu ngeen xewlee mboolem ñi ngeen bokkal lislaam dañu ñëw ma bëgg nag ngeen bàyyi xel loolu sallallahu alayhi wa dafa wax yàgg na ko wax waaye xaj gi mu mujj a def da ko caa baamu ñetti yoon mu ne lu ne ab jullit araam na ci bépp jullit deretam alalam ab deram deretam alalam ab deram loolu nag ku ko sàmm ci sa mbokkum jullit dara daa desatut ci loo ko mën a sàmm bu kenn tudd nit ngeen di ca teg dara ndax looloo tudd yàqub der bu kan jekku alali moroomam wala mu man ko ko aaral mu bañ koo def tuur deret nag sëriñ tubaa dane waxuma la ko bokk ci man di tuur deret waaye rey yi lore ni ki jiit ak jaan bokkul ci sama mbir serigne touba momu nak dafa wax ne luma way jàppi lu khadim rasulillah ak ndoxa ko yóbbe te ku yaakaar ne da nga liggeyal sallallahu alayhi wa sallam lu melni nima koy liggéeyale loli dom mune liggeyal nako lo xane ma nga ci rawdatu ba ci madinatul munawwar te yowmal qiyamati lañ koy xam mu ne dama liggéeyal ñi nga xam ne ñoo fi yoroon i ngir bañ gërëm na cheikh abdul qadir jilaani làq naa ngërëmam abul hasan azazali làq naa ngërëmam a cheikh abul abbas ahmad atijani làq naa ngërëmam radiya anni alxulafaa al arbaa xustu ridal muqarrabin al mutbaa dama ko fàtte woon mu ne xulafaawul arbaati yépp gërëm nañ ko ña topp ci ñoom te jege yàlla ñéppit laq naa seeni ngërëm mu teg sa ba tax nag koo xam ne neexuma la sama mbir neexu la man saa mbir neex na yàlla neex yonent bi neex nit yàlla yépp te loola doy na ma ministre bi wax na fi léegi lu doy kibaan rapport boobu mi ngi nekk le 25 octobre 1915 Antoine moomu wax na ca lu bari ci yëm sëriñ Touba dama lay dëggalal rek nee na booy wax ak moom doo ko mën a yey ndax loo wax mu teg ci dara école bi ngeen di romb ci Ngabo tubaab yi ñoo ne woon sëñ Touba dañ ko fii def te yaay wut ña cay jàng te da ngay fay kay jàngale te yaa koy sàkket mbaa nga tabax ko sëñ bi nangu. waaye ku dem doo jàng mooy wax nee na ñu ne ko yaa ngi leen di yabal waaye du jàng sëñ Tuubaa dema nee na mu ne ko yabal leen ñu jàng laa man waaye duma leen gàccim njàng ne ko ndax yow ku la gawoon ci jàng wolof dana la neex na nga ko xool da ko ci gis nee na ñu ne nañ ci sàkki pexe ñu wut benn tubaab bu tudd Fatina Touré yabal ko nga bu mu di fa jàngale waaye amu fa lu mat weer jébbalu ci Serigne Touba ne ko damaa bëgg tudd saw tur ñu tuddee ko Ahmadou Bamba Mbakke wax na ne mas naa invité sëriñ tubaa Jurbel da nga ko ca gis mu ñëw ma ne ko mu ne ko man tey doyewuma la service danoo baaxoo bu nu amee xarit di ko woo ngan ma bëgg nga wax ma loo bëgg Sëriñ Touba ne ko defaral ma kafe waaye ci sama kanam nga koy tàngale nee na fekk baayam donne na ci maamam benn kefteer boo xam ne guerre bi amoon diggante France ak Russie bañ fa demee ca lañ ko jëlee moom mu moom ko denc ko nee na keroog laa ko ma a génne tàngalal ko ci kafe mu ne ma des na ma ne ko ah mu ne ma suukaru su bekk sans borom daf ma ko tere tel si nga may wutal mu yónni booyam ca marché njaareem mu wër wër gisu ko mu ne ko kon jox ma café guñ suukarut gi ma naan ko sëñ Tuba naan kafe guñ suukarut gi ba noppi teg ca leneen ne ko kopp bii ma naanee denc ko te bu ci keneen naanati mu def mu baare wax ne dafa mel ne moom dafa xam boppam ndax ni ñu koy warmaale ni lay warmaale boppam moo tax na ngeen xam li ngeen am te dafa am lu bon ci nit mooy complexe ñaara ci am bu Oedipe ak bu Freud bii da yégloo sa bopp ba nga defee ne yaa gën ñëpp amul njariñ bii xeeb loola sa bopp ba nga defee ne ku jóg gën la loolu it bu nu dal màggalu Tuubaa gii nu nekk yaakaar naa ne ambassadeuru Brésil mi ngi fi waxtu wi nga xamee ne yéen yéen a ngi dundal seen màggal jàng alxuraan joxe ñam tudd yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom it ca lam doone seeni aada ña ngay def lu tudd carnaval de Rio de Janeiro te li ci kiimaanu mooy bu ñu koy def état ba day mobiliser moyens yëpp te li ci gën a metti mooy dañuy dox ñoom mobile du ñu leen fekk ci kër du taxaw benn bërëb ambulance yi day dox watee ndox yi day dox secours yi day dox loolu lu doy kiimaan la te ay fan lay doon ñu topp leen ba wóor ne ne àggal nañ ci la ñuy def moo tax sunu borom ni wala tahinu fi ibtigaa il qawmi in takunu taalamuuna fa innahum yaalamuuna kama taalamuun wa tarjuuna min allahi ma la yarjuun ñëppay sonn ni ngeen di sonn yéen jullit ñi te yéen a ngi yaakaar ci li ngeen may sonnal loo xam ne ñoom yaakaaruñ ko ci sëriñ Tuubaa mi ngeen tuddee sëriñ bu mag bu ngeen demee ca sud-est asiatique am na fa pàkkub suuf bu tudd Tibet xaw a niroog ci tur am fa dëkk bu ñuy màggal bu tudd daram sala nuroog daaru salaam ka ko jiite ñu di ko wax Dalai Lama lim tekk ci siin mooy sëriñ bu mag bi bu leen xeeb seen bopp dangeen ciy jàpp te bañ a xeeb keneen mbirum yàlla nag dafa nanguwul bu la xasee yëkkati yàlla du nangu kenn bokkati la bu ngeen ko seetloo bu ngeen jógee ndakaaru ñëw ba njaareem tableau bi wane fi ñuy jëm bindu Touba Mbàkke la bind waaye kenn jëmul Mbàkke tuubaa lañ jëm kiy joxe météo du figuré ci biir carte bi Touba te ginnaaw Touba waxuma njàmbat de damay leeral damay leeral mbirum yàlla nim def dul nangu bu la joxee cër dalay yoral boppam ndax bu keneen jàppee moo wacc moom du ngeen ci gis Touba li ngeer fatik yoy ngeen di gis te fi ci budé population ñaari million ak nangam ñoo fi ne sayidina musa bako Firawna mere daf ne l'obélisque biñ ko tuddé won monument yi ñu doon bind ay turam nañ ko effacer te génn ko dëkk bi waye xam nga lu ko ci yàlla fayé suuf sépp wa awrasa musa wa liqawmihi al arda mashariq al ardi wa magharibaha loolu la ko ci yàlla fayé xeetam bi ci ñi gëna tedd lañ bokk firaw na kenn gisatul mbokkam sëriñ Touba da ngeen koy jox cëram yéen taalibe yi da ngeen di nangoo niru li ngeen doon jëpplu gi gën a rëy ci li ñuy wax ci murit sunu boroom daf ko wax ci alxuraan ndaxte jëpplu mooy maa ngi nii ni ab malade di def docteur rek la ni ab élève di def ka koy jàngal rek la ni ab lire di def ndeyam jiko jur la bàyyi ko mu defar ko lol la waye jam kenn ko am mu yàlla waye fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuxakkiku hatta yuxakkimuuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima lol la alquran wax yàlla dafa giñ ne ngi giñ ci sama mag man man yàlla ne yow Muhammad ak luñ la mën a wax li ñuy wax du dëgg li fekk ñu ne la jébbalu nan ci yow bàyyi nan la ak sunu bopp looloo tax Sëñ Tuubaa digle jébbalu lii ñu tuddee sujjóot sujjóot doonu ko foon loxo la tudd waaye même bu tuddoon sujjóot yàlla bi mu bindee aadama def ne nañ ci sujjóot ñépp sujjóot ci sëydinaa Yuusufa dafa gént fukki biddéew ak benn di sujjóot ci moom weer wi ak jant bi di si jot ci moom lu gudd la waaye fa mu mujj dafa am ba bokkam yépp daje ndeyam ak baayam mu teg leen ci kaw lal bi toog dend ak ñoom fukki doomi baayam yaag benn tàmbali di sujjóot ndeyam ak baayam it jóg di sujjóot kon xanaa koo bokkal ñu di yonent bu kenn waroon a bañ a sujjóot ci keneen ñooñu duñ ko def ndey ak baay it ñoo gën a màgg ci àddina dañoo jóg moo tax mu daal di mel ne ahada achara kawkaban mooy fukki doomi baayam yaag benn wa shamsa wal qamara mooy ñaari aba aba ñaari waajuram loolu yépp dafay mat di leeral tariqa ak yi nuy def fii jëkkut ci noonu li jëkk am gannaaw yonent bi ci ngir ngir mooy abi xanifata te juróom-ñett fukki at gannaaw yonent gannaaw hijra ci la ko sose malik ibnu anas gannaaw juróom-ñeent fukki at ak ñett shafii gannaaw téeméeri at ak juróom fukk ibnu hanbal gannaaw téeméeri at ak ñeent fukk ak juróom benn xadis yi dajale ibnu ishaq mo jàngal ibnu hisham sira te sira yi ñi jàng ci sénégal yépp ibnu hisham moko def te koku momitam gannaaw yonent bi amna téméré at soga a bi yëf yi data dox deug deug deug moy a wal junayd siqti moy mooy junayd iraq lañu nek seen ñaari babel yi dañoo dem ñom ñoo leral sharia ba xamne ne shariatu dafay ànd ak haqiqatu shariatu kese moy sakket amuti xer xaqiqatu mooy xere kese yu sàkket waaye lu bon bon xer dana taxaw moom boo amul sakket sakket nag boo amul xer dadul taxaw waaye nag dañ leen di boole. ñu dikk ci sëriñ Saliou ñi nga xam ne nag ñooy bokki jullit yi bokki wëlëre yi dama leen di sant ndax nañ war a mel mel nañ ni ndax dañoo wax ne. koo yilifut ku ne sa nawle la kon nawlonte lan seq ak ñoom te nawloo nañu sañ Saliou jàpp nañ ko waaye nun ñi mu yilif nag dafa am nun war a jëflante ak moom ma di leen xamal ne nit lañuy màggal ci moom doo ko xool gis ko dëmm yi ngeen baal ma ak dëmm yi kenn du xoolu dëmm xam ne kii dëmm la daane ca biir te kenn xamut lu mu sawaa yi nekk ci Houston ci Cap Canaveral lañ xam bay dem ci weer wi kenn du ne xool xam ko te ma nga ñoom ñii dem ci weer waa ki ñëw kon sëriñ Saalihu nooyaay bi woyof bi yërmande ji bu ñu ko topp nañoom fuñ ko yem nañu am fuñ ko ndaxte sunu boroom dane wa man yataadda xuduud allahi fa ulaayka hum zalimun te kenn ku ne it war ngaa natt sa bopp ci mbir mu ne ndax sunu boroon sax bokkaale bi mu ko teree dafa wax ne maa ngi leen di leeral li tax ma bañ ku ma bokkaale te ci yéen laa koy misaal ndax nangu ngeen li ma leen may ciy soxna ak i alal ak i oto ngeen ñëw fekk kenn di ko jëfandikoo ni ngeen ko daa jëfandikoo noonu ngeen ko bañee ni laa bañee mayit sama nguur gi ku ko bokkaaleeg man kenn ku ne na seet boppam nam bëggee ku ko aar nam bëggee ku ko may jàmm nam bëgge ko ko baye ak bopam mu haatandiko ñu xamne da waxu do bëgg nako te kat walaf dane bukki bëtt bunt bant ben bëttam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصر في الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة ليس لأمة النبي سواك يا مكثرا صببت لي جدواك واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذد من حسدوا واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي التعرف واصرف قلوب المؤمنين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر